maam yaay ki nu bégal ñun sunu may yaangu baawaano maamam jëmbat naanu ay baayam xat naanu borom yaaram mooy ki nu bégal ñun sunu may yaangi yéen sët yi asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu ginnaaw ba ñu sante yàlla julli ci sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam nuyu l'islam bi yëpp waaye jël nu yóbbu lislaam boobu ñu teg ko ci loxoy suñu maam euh, suñu maam suñu Assane Seck di sëriñ Canaba euh, di nuyu itam mboolem kër maam Ahmadou Ndaggu nekk ci biir Canaba euh, waaye wàcce nuyoo boobu ci suñu bër kër maam Serigne Ibrahima Seck di jël nuyoo bi di ko teg ci suñu wayjur Baye Cheikh mu wàcce ko ci ay rakkam Baye Serigne Cheikh Amadou Imam bàyyi sëñ Cheikh Diop Dior mm. bàyyi sëñ Ahmad Dam bàyyi sëriñ Ñaana bàyyi sëriñ Samba Gasso bàyyi sëriñ Cheikh Wali mm. bàyyi sëriñ Ali Seck ba ca bàyyi sëriñ Seck ak mboolem soxna yi nga xam ni ñoom la sëñ Ibrahima sekk jaboote mm-hmm. ñu ngi nuyu ñëpp di ñaanal yàlla ñoom ñëpp seen seen fan gudd seen wér dolliku di nuyu itam njaboot gi nga xamante ni ñoom ñoo leen njaboote ñoom ñëpp euh, bàyyiwuñ ci kenn waaye di nuyu mboolem njabootuk Serigne Ibrahima Seck fu mu nekk ci àdduna ak fu mu nekk ci Sénégal ak fu mu nekk ci réew te mooy njabootu lislaam gépp ndax sëñ Ibrahima moom daa jëloon boppam may ko lislaam bi noonu la dunde noonu la doxe noonu la génne àdduna ah tey jii nag bu ñu dajee fii ñu gis ak njabootam ràññee leen ci ñu taxaw ku ne di nga laajte lu waral daje bi waaye li eh, daje bi lu yomba layal lay doon li waral itam ñu indi télévision di ko wax lu yomba layal lay doon ndax lii ñu fi doon def yendoo ko ci suba ba tey daa doon loo xam ni xëy na àdduna ñëpp mënuñoo teewandoo waaye bu ñenn teewee dañuy yóbbaale ña ca des te mbir mi doon loo xam ne dañoo jàpp ni ñëpp ko bokk képp kuy wuyoo wuyoo diine ci lii nga bokk képp kuy wuyoo lislaam bi ci nga bokk waaye képp kuy wuyoo maam Cheikh Canaba Amari Ndak ci lii nga bokk waaye kuy wuyoo maam Cheikh Canaba Ibrahima sekk ci lii nga bokk loolu moo tax ñu xamee ni ñi mën a teew ñi waroon a teew ñëpp teewuñu waaye ñi mën a teew teew nañ ñu gëm ni ñi mën a teew biñ teewee ñoo teewal ñi mënta teew kon nag ñi yàlla at seenu teewaay yemb bu ñu liggéeyee ba pare baax nañu gaaral ko ba ci bokk rek xam ni lii kat lañ fi def tey. Mhm. loolu dong waral ñu ñu taxaw ci média di ko wax. Mhm. waaye bu dul woon loolu. Mhm. ah mën nañu ko def suñu mbiru bopp. toog waxtaan. buñ paree génn a dem waaye nag dañoo jàpp ni ña ñi fi nekkul te bokk ci ñu ëpp ñi fi nekk te bokk ci fa tabarakallah kon nag ñi ngi woo ñëpp lii ñu fi yendoo def tey mooy taxawal nañ fi kuréel kuréel goo xamante ne dañ ko tudde association njabootu Serigne Ibrahima Seck li tax ñu tuddee ko association njabootu sëñ Ibrahima Seck mooy seeti boroom yaaram ci boppam ñi mu jur seen way jur yu góor wala ñu jur seen i yu jigéen ñoo am initiative xalaat ni war nañu am mbooloo moo xamante ni mbooloom diina ji lay doon waaye mbooloo moomu kat buñ ko tuddee woon sëti sëñ sëti sëñ Ibrahima kese day xat ndax sëñ Ibrahima ëpp na lool ñu ne dañ koy boo def mbooloo moo xam ne képp ku njabootoo sëñ ci sëñ Ibrahima mm-hmm. te nit nag moom ki njabootoo moom mooy ki bëgg rek mu doon nga doon njabootam mm-hmm. boo xasee ne sañ Ibrahima njabootam laa rek mm-hmm. association bi am nga sañ-sañu dugg ci boo nee sëñ Ibrahima Seck bëgg naa ko am nga sañ-sañu bokk ci biir association bi boo xawee noo ca duggee ak noo ca bokkee ah di wuyoo sañ Ibrahima rek am nga sañ-sañu bokk ci lu mel nii loolu nag la ñu taxawal jaboot gi taxawal ko bokk ci biir ñu sant sekk nekk ci biir ñu sant neneen nekk ci biir waaye ñag ñu sos ko ba pare ubbi ko nag doon ko bunt bu yaatu boo xamante ni xaar nañ ci àdduna bépp fépp fu ko waay déggee te bëggee liggéey ngir suñu maam Cheikh Thiénaba Ibrahima Seck yoon a ngi nii waaye bunta ngi nii boo xamante ni mën nga cee def loo bëgg mën nga cee liggéey noo bëgg li tax ubbi googu yaatal gi tamit mooy ki ki nga xamante ni moom la ñuy tuddoo muy suñu maam di suñu sëriñ daa doonoon koo xam ni daa jëloon boppam jox ko ñëpp soxla yi ñëpp di soxlaam eh, mbiri ñëpp di ay mbiram mbiri lislaam bi di mbiram kuréel gii ñu ko eh, sosal nag bëgg liggéey ci ci aw yoonam dañuy wax ne la maam sët koy jël sët yi nag fas yéene taxaw dox seen doxinu maam ah loolu nag ñu ngi leen ci ñaanal yàlla di ci ñaanal yàlla association bi yëpp yàlla may ñu ba dox boobu ñu bëgg a dox ta mooy fexe ba ni sëñ Ibrahima jëmmoo woon ñu jëmmoo noonu ni mu daan doxale ñu doxale noonu ba doon mbooloo moo xamante ne jenn jëmm lay doon waaye doon jëmmi sëñ Ibrahima bu doxee ñu ni eskay bu waxee ñu ni eskay ah kon loolu yàlla nañ ko yàlla defal bi ko defee nag tey yendu nañ fi ba ngoon waxtaan nañ tëral nañ programme taxawal nañ fi bureau taxawal nañ fi association bi li ci war lépp am nañ ba nga xamante ni bu ñu fi jógee incha allah lépp luy këyit ak luñ ci war a den dinañ ko taxaw incha allah taala ah ñuy wax ni bureau boobu tënk nañ ko ci ginnaaw bañ ci waxtaanee ci lu ñëpp ànd mooy ñu jël bureau euh, jël président bi jox ko sëñ Madické Seck du Cheikh Jibrilu ah doon njaboot doon rak doon mag ah, ci njaboot gépp njaboot gépp lu taxawaayam tànn ko ci loolu ban te jógee itam jël nañ ki topp ci moom ñu toftal ci sëriñ Cheikh Baye Issa Diop kenn du ko laajte moom tamit di sët ci sëñ Ibrahima Seck ah bañ te jógee ñu ut muy kooku di président ak vice président. ñu sos lu ñuy wax secrétariat général. secrétariat général bi jox nañ ko sëñ Mouhamad Fall. moom it kenn du ko laajte di doom ci Soxna Fari. muy doom ci sëñ Ibrahima Seck. ñu jël secrétaire général adjointe. dugal jigéen muy Soxna Mati Diagne. Soxna Mati. moom tamit doomu soxna Mbenooy ñu jox ko moom tamit mu nekk mu topp ci sëñ Mouhamed Fall mm-hmm. bi ñu jógee ci loolu am nañu trésorier trésorier général mm-hmm. muy sëriñ Bouya Seck bu suñu wéyjur Baye Cheikh Amadou Seck mm-hmm. waaye moom tamit utal nañ ko adjoint adjoint trésorier muy Baye Alfaramata mu suñu Baye Samba Gassou waaye tamit am nañ commissaire au compte muy sëriñ Modou Roqaye mu suñu wéyjur Baye Cheikh Jibril donc loolu moom mooy bureau bi bi nga xamante ni moom la ñu moom la ñu sos mm. bi ñu paree ci bureau bi tamit am nañ ut nañ ay commission mm. ut nañ commission scientifique mm. baay Issa Diop nekk ci man mii tam ma nekk ci biir commission boobu ah euh, ut nañ tamit commission euh, communication sëñ Baara Ndiaye nekk ci sëñ Talla Diop nekk ci soxna Koudia Seck nekk ci ñu yor ak ak ak sëñ Mouhamad Samb ñu nekk ci biir commission communication boobu am nañ tamit commission organisation commission organisation boo tamit ñu jiital ci sëriñ Alpha Mamadou bu sëriñ suñu wayju Baye Cheikh Amadou waaye tamit ñu dugal ca sëriñ ah, ah, ah, sëriñ Cheikh Tidiane Seck mu suñu Baye wayjur Baye Diop Dior ak ñeneen ñu ci àndal ñëpp ak sëriñ Ibrahima Diagne euh, commission yi euh, defe naa ni noonu la tëddee beneen commission bi ci des bu mujj wi muy commission féminine ñu jël jigéen ñi comme ñoom dañu am seen mbiri bopp am seeni i feeñ bopp moom tamit sas nañ euh, commission boobu euh, bàyyee ko jigéen ñi ñu dor yor ko di ko doxal ci seen fan bu ko defee li nga xamante ne tënk nañ ko ci association bi tamit mooy dinañ jaay ay carte de membre carte de membre yi dina dina tàmbalee ci mille francs ba jàpp 10 mille képp koo xamante ne bokk nga bëgg ngaa bokk li ñu wax mooy nga njabootu nga nangoo njabootu ci sëñ Ibrahima te loolu ñëpp ko bokk ba pare nga nangu jënd ci carte de membre yi boo jëndee carte de membre rek bokk nga carte de membre yi nag dañoo bëgg mu yomb ci ñëpp moo tax ñu ne euh, mën ngaa jënd bu 1000 francs bu la neexee nga jënd bu 2000 bu la neexee nga jënd bu 5000 bu la neexee nga jënd bu 10 000. Mbuya Diagne boo ko boo ko jotee di nga am carte de membre yi nga soxla incha allah ku ci nekk la nga man mooy sa jaayante ci góor gi bu ko defee nag ñu ni cotisation yi moom euh, maasale nañ ko ñëpp cotisation 1000 francs la weer wu ne. képp ku bokk ci mbir mi ci association bi weer wu dee war ngaa cotiser te cotisation yi ñu ngi koy commencé le premier juillet donc mooy weer wu njëkk ci taxawaayu association bi incha allah waxtaan nañ euh, delloonte nañ euh, ay kaddu kaddu yu cant kaddu yu ngërëm ak kaddu yu ñaaxante ku ci nekk wax nañ suñu maam nam meloon ak nam taxawoon ak ku ko bëgg a mel noo noo war a taxawe ak itam lan la ñuy xaar ci ñun ñëpp ñu mel ko muy doon jënn jëmm muy jëmmi sëñ Ibrahima Seck ñun ñëpp ñu wuyo ko ku ne xoole ko sa morom ku ne jàppe ko sa moroom loolu lañu euh, lañu fi tënk tey dañaan yàlla mu may ñu ñu àggale ko ci jàmm ba fañ bëgg mu yàgg mu yegg ko fa ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu mbokk yi kon xanaa rek euh, li ñu wax ni léeg-léeg nit ñu fekke fekkee ma ci boole waaye man mi di wax fekke boolewu ma ci mm-hmm. yàlla ma ci boole dama cee bokk mm-hmm. ci assemblée générale bi nga xam ne tey sëti sëñ Ibrahima Seck leeram ak sëti deretam ñoo ko doon def tey jii euh, maa ngi fàttali ko rek ay at yu néew boo mosaana romb dajeeg nit ñu ko ana diw mu ne ci bunt sanc bii kooku daan maa ngi ko bàyyi mu taxaw ca bunt assemblée ba léegi rek lañ naan sanc baag kër sëñ jibee kër sëñ mais mais ñun li ñu daan dégg ci bi ñuy xàmmeeku mooy mu ko ci buntu assemblée waaye maa ngi leen bàyyi ci buntu assemblée ba ñu toog loolu nag li muy tekk li muy tekki mooy fii naka jekk ak fii ngeen taxaw barab la boo xam ne yàgg naa boole waaye barab la boo xam ne xalaat yi xalaat yi yàgg nañ fee sotee barab la boo xam ni xalaat yi yàgg nañ fee dajee barab la boo xam ni yàgg nañ fee fase lu baax tënk ko mu génn ñëpp mën koo jariñoo kon wat ca watit mhm. Cheikh bu Ndiaye jotaay bi ak mbooloo mi yal na yàlla sagal leen ci ci ci barke yonent bi yàlla nañ ci am réussite boo xam ni si Ibrahima da koy yëg fa mu tëdd yàlla nañ ci am réussite boo xam ni mag ñi dañ koy yëg fa fa ñu tëdd ci barke yonent bi sëñ ma am ngeenu sas yéen ñëpp waaye yow am ngoo sas ndax sas mooy nga bokk ak ñii ñëpp si Ibrahima Seck waaye ñoom ñëpp ñu wëlbatiku seen yaakaar def ko ci yow ci dox ak wax loolu nag ku ko am ci say nawle waratoo nelaw ba yandoor waaye confiance boobu tam waroon laa doy sëkk ci dox ak wax kon yàlla yàlla jàppale leen nun nag nu ci seen wet ci saa su ngeen di soxlaa ci kàddu saa su ngeen di soxlaa ci taxawaay léegi laa fi jóge ni woon naa dem dalul rek ndax biig damaa guddi al lool bala maa suñu médical soxlawaat ndax mission bi kon xam naa rek wala sama mbégte ak sama kontaante waaw di xam ne daal si Ibrahima ku ko doon bàyyi xel jom ci sa kanam bàyyi xel ngor bàyyi xel fulla bàyyi xel fayda te nag ko doon gileem nag da nga war a war nag doonu sëf ba waaye bëgg doonu gileem te doon doo doonu sëf ba du ngor xel fekkiwu ko yéen ñëpp ku ci ne yaa tedd te si sax tax ngay tedd ku ci foo dem na xoolaat la ngir si Ibrahima ku ci ne foo dem ñu taral la ñu siwraang sëkk mooy baat bi seex na ñun ñëpp réew maa ngi ni xool cana baa ngi ni xool am na lu ñuy xaar ci ñun li ñuy xaar ci ñun mooy ku ci jëf rek ba bàyyi ñu ngi cey siwraang sëkk sëtam ba boo waxee ba daal ñuy cey siwraang sëkk seen sët ya waxoon naa fii nag ni toog yomb na waaye toogandoo jafe yéen nag yéen yéen a ngi toogandoo yàlla toogandoo gi yàgg soxna xujja li wax ma dikk rek yow it am nga sas sas yu nga am mooy da ngaa bokk ak yi kër si Ibrahima Seck ñu wëlbatikuwaat ni sunu yaakaar mu ngi ci soxna Khoudia loolu nag boobu confiance ku ko say naw la jox boo nelawatee ba yandoor xamoo lan la jox kon yéen ñi ñu jox ay responsabilité bis bi ci ni ma dégg seex wax ko ku ci ne jàppal ni lañu la jox du nguur du ak pal waaye ña la ko jox ñu ngi jël seen i bët teg ko ci di xaar say résultat seex du loolu la ku ñu jox rek ak pal ba pasu nekkul nguur nekkul garaat buñ teg fii nga di ko tiitaroo da war a sol sa dàll ni liñ ma fal ci saal bi danaa ko jëf ba ñi ma ko fal xam ne kiñ ko fal mat la ko bi ñu des nag mooy ñun ñëpp ku ci ne boo jàppee ne kër si a Seck bu ma seeraanee sama seeraan moo koy yàq yàqu daam ku ci ne boo jàppee ne saak defar mooy defar kër si Ibrahima Seck incha allah léppay defaru waaw lu lu lu baax nag naa baaxal asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu baay borom yaaram yaay ki nu béegal ñun sunu may yaangu baawaano maama mu jëmbat ay baayam xatanaanu borom yaaram mooy ki nu beegal nun sunu may yaagi yéen sot yi ni maama mu jëmbat naanu ay baayam suuxatanaanu baay borom yaaram yaa nu beegal sunu may yaagu baawaa mu jëmbat naanu ay baayam suuxat naanu baay xaram yaa xaram yaa ñu bégal nun sunu may yaa ñi baawa yéen sët yi di maamam jëmbat naanu ay baayam xat naanu bay borom yaaram yaa ñu bégal nun sunu may yaa ñi baawa borom yaaram buur yàlla may naa ko ku ji waaxu baani dem ak baay borom yaaram daalay ngir weer ngir mande lislaam